ngeen jot suñu vidéo ngeen di ma jàngal leen communiqué ministère de la santé et de l'action sociale si bésu tey di mercredi 8 avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaja lim. ci téeméer ak juróom-ñetti test yi ñu def juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam ñaari cas kontak yi jaxasoo ak ñu yore doomu jàngoro bi ak juróomi cas communautaire juróom-ñett si ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñi nga xam ne ñoo des ci hôpitaux yi ñu ngi am tan ci bésu tey bi dalee ko ci kaa bi nga xam ne moom la Sénégal njëkk am woññ nañu téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti cas wër nañu ñaar yu ñàkk seen bakken benn bu ñu évacué mu des téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti cas ci suñu structure hospitalière yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmonteg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxle maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam